lañ teggi barrière yi wala bu Ousmane Sonko nekkee président avant présidentiel bi ñu wax ñu parce que barrière à part palais amul feneen Ousmane Sonko c'est le deuxième président de la République du Sénégal xool leen bu baax lépp baatin la Macky Sall moo nekk koo xam ni ay policiers ñoo koy garder buntu këram Sénégal ba Sénégal daj usman Sonko moo fi am lu mel noonu moo fi nekk une seule personne boo xam ne buntu këram am na ay barrière am ay policier am ay gendarme yu koy garder yàlla ñu waxal Macky Sall foofu booy pare rek kii la boo paree rek kii la nee naa leen encore une fois gis ngeen ko Macky Sall dama koy répété waat encore une fois toujours Macky Sall dafa bëgg a arrière élection yi deux ci ñaari yoon yoon benn bi ci dialogue la ko bugg a jaaree bu sottiwul maanaam mu jéem a jàpp Ousmane ko def ko lim koy def dëkk bi tàkk mu arrière élection yi loolu Macky Sall da ko bind ba pare nee na dafay def deux ans moo tax bañ may menacer ñoom ca kaw dañ ma wax ni ma fii ak deux ans moom doo fi dugg ñu ma quatre ans waxuñu ma cinq ans xam nga xeex bi ci kaw la moo tax man mbojo mbojo gi ci suuf duma leen di tontu. déedéet <laughs> mënuma am valeur boo xam ni réew mi dafa fay am kàddu réew mi gis nga yàlla nu mu màggalee Sonko noonu la ma màggalee ci combattant yi réew mi dama fi am kàddu bërkaati démb gars yi bu ñu waree def gis gisi Sonko barke alxuraanul karim woo nañ ma laaj ma lan ngaa war a wax loo war a wax Macky Sall yow réew mi dama fi am kàddu yàlla moo ko def gis nga yàlla dañ ko nangul réew mi ponkal boo leen fi gis alquran daf may woo alquranul karim barki laa ilaha illallah darajey seydina muhammad kon yàlla na ma safara jël si addiya ponkal boo leen gis ci réew mii daf may woo yow yàlla moo ko def nag <laughs> yàlla moo ko def barki alquranul karim alquran laa war kon yàlla na ma yàlla tëmbal safara ponkal yi ngeen di gis ci réew mi ñuy guddi guddi bandi bandilu bu ñu yegsee ci ma dañuy ruk sukk toog di ma déglu boo waxee ba pare du de du de dëkk bi ñooy riir di daw di ñëw ñii di firnde ñii di ñaan ñii di saraxu ñi naan non moo laa lii ak laa yàlla moo ko def kenn mënuma suul kenn kenn kenn kenn kenn gisuma ko ponkal yi ngand ngand ngand man man faalewuma leen parce que gars yi dafa am ñu rëy ci ñoom moo laa xoolal moo laa mii parce que alxuraanul karim ginnaaw sëriñ Tuubaa Cheikh dama ne ginnaaw Serigne Touba Cheikh Ibra kenn star sama kanam man man Serigne Touba laa gëm la Ibra lo nawloo ñoo ñooy samay star nit mënuñu laa tagg tagg ba nga katt lu fandaayam saf dara sama kanam ku dul Serigne Touba Cheikh Ibra laa la xool la tagg ba nga saf nday dama lay xoolee ancien sperm ancien spermatozoïde futur cadavre ndem dama jox cër ñëpp kilifa diine yi mais dama ne Serigne Touba mooy sama star Cheikh Ibra mooy sama star ñooñu ñaari star laa am moom laay taf ci sama kër sama salon boo duggee Cheikh Ibrahima ngay jàkkaar lool nga dugg sama nekk dajoor Serigne Touba ñooñee samay star donc kenn mënuma woo bam saf ma ak noo mun a day maa ngi dégg ñeneen ma ne Juan Branco woo na ma ñëw na non day fen kuy Juan Branco mës ngeen ma dégg may wax ci ay Juan Branco wala Juan Brando man na am complexe nday loolu ma def 15 ans ci kaaw bi. gis nday ay avocat yu naaw gis ay avocat yu dugg ci asamaan si gis ay avocat yu wàcc si suuf si man damaa la jënd man luy nday man man ma faala Juan Branco bu ma woo bu ma woowu mus ngeen maa gis may dem li jënd nday man dama am complexe nday tubaab yooyu Juan Branco Juan Saranco Juan Ngaranco Juan Branco moo ma woo woowu ma ko de moo ma woo ak respect laaj ma ay information ma jox ko li ma koy jox dem sama yoon loolu moo koy wax autorités yi laa tax di ko wax mais du pour yéen kuy Juan Branco ma gën ko ci nday ko ci baay man Juan Branco moo woowee cottu ndayam lan la may yokku luy Juan Branco bu leen ma katt lu ndayamaa ah, dooma xaraami naan Juan Branco woow ko woo katt la ndayam man ma gën Juan Branco ci nday gën ko ci baay gën ko ci juddu lu Juan Branco Juan Barigo Juan Bërëng Barigo bu leen ma katt lu ndayamaa ah. xeex bi ma ci nekk damaa xam Juan Branco wala Juan Branco ma xanaa lan la du avocat Juan Branco moo ma woo moom moo ma bind musuma ko bind xaw ma aw ma paasam xaw ma daraam moo ma bind ne dafa soxla tel document ma jox ko ay document mu yóbbaale jox ko ba jox ko lu ma laajut mu yóbbaale na ma merci ñu ñu seq àndandoo léegi nekk ay gaayen tey suba ma yeewoo bind na ma ma tontu ko loolu lañ seq yàlla bu bind na ma wala yeneen tu bind na wala Serigne na ma wala Xaadimal Moustapha bind na ma wala Cheikh Ibra bind na ma man ñooñu ñooñu ñooñoo may bind sama yaram di daw ñooñoo may bind ma dem jàppi julli ñaari rakka naan akasa jërëjëf Serigne Touba jaral ak ma Cheikh Rafal ñooñoo may bind may jommi ñooñoo may bind may jaaxle ñooñoo may bind sama yaram di daw ñooñoo may bind may dellu ci Allahu subhanahu wa ku dul kooku mënu ma bind lu ma saf man damaa faale nday ñuy dox di fii ci waaye a ñaan ma Juan Branco Juan xooma lan ak lan ak yéen yéen da ngeen ne lan ma faale nday luy loolu yéen lu dul Sëriñ ñoruma lu Cheikh Ibra ñoruma ñooñu rek ñoo ma saf ñooñu ma jommal ñoo ma jaaxal ñoo ma mun a def lu ma yéem leneen lépp laa la wax day disparaître nay leer lu ñu war a wax lii ngeen taxaw ci góor gi si Dieng maa ko waxaat man talu may sosalaate talu may fenalaate combat bi dëgg la dëgg dëgg laa koy doxee dëgg ci dëgg laa koy dox moo tax ñu jox ma cër moo tax dëkk bi ñu jox ma cër bërkaati démb bi Macky Sall dajalee euh, nu mu tuddati entrepreneur yeeg affaire yooyu tey sax la ñu war a gisante ñoom tey ba mu leen woowee pour ñu dem gisi ji ñi nga xam ne ñooy waa F24 man yëg naa ko jour conférence de presse waa F24 ñi yor entreprise Sénégal yëpp dajaloo Macky Sall woo leen pour ñu dem dox jàmm pour pourtant ñëw nañ ci man te maa ngi ci kaaw bi di di wax ak man pour ma dox jàmm. pour ma pour ma wàcce sama arme yi ma wàcce sama arme yi te pourtant néew ma senegal dem nañ ca F24 toog ak ñoom ñoom buggaan ak toog seen conférence de presse bi ñu recevoir li ñi nga xam ni mooy entrepreneur yeeg ñëpp ñu wax ñoom ñoom pourtant wax nañoo ak man nañu demee ci ñooñu lañ ñëwee ci man kon man yor naa arme yu di fëgg mu leen di dal di sax sax moo tax bu leen Macky Sall wax leen dem leen waxtaan ak jaam yi ñëw nañ waxtaan ak man tamit tey jii la ñuy war a dem pour waxtaan ak Macky Sall ñoom tey réew mi dama cee bokk nga génn ma ci dama cee bokk nga jëm ma ci rocci dama cee bokk yàllaa ko def dama cee bokk kom takk ndeer dama cee bokk nit buy dox day ànd ak takk ndeer dama cee bokk kenn mënu ma cee seppi dama cee bokk yor ay armes yu sophistiqué di ko fëgg muy dal di saf-saf ba ñu ne dañuy dem waxtaan ak Macky la ñëw nañ ci man Macky Sall mi ngi wër jàmm boobu ba léegi mi ngi dox jàmm de man de kàddoom ñëw na ci man ba ma ñëwee wax lu ma ci xalaat dama ne leen dem leen ngeen ne Macky Sall dem lu leen de lu leen wax dem leen ngeen ne Macky mu génn wax ak jaam yi ñu ne maa ma ne ko waaw nee leen ko ñu ne na génn wax ak sénégalais yi mooy njiitu senegal jiite ay doomu aadama am ay doomu aadama yi génn rey sénégalais yi tiire leen ay balu fetal am ay nervi yu yor ay fetal ay kalachnikov ay RPG 7 ay AK 45 yor ay 4-4 di tiire sénégalais yi di leen rey muy njiitu réew mi war a génn wax ak ñoom wala jaalee njaboot yi defagu ko boobu ba léegi leen ko mu génn wax ak askanam rek nga am pour wax ko ma ne ko waaw nee ko mu génn wax ak askanam jaale ñi dee balaa moo yónnee pour ñu kalmal dëkk bi moom mu génn wax ak askan wi ñu ne ma loolu rek nga am ma ne waaw ñu ne bisimilah loolu la ñu yóbbaale. tey dinañ gisanteeg Macky Sall tey tey tey xam naa nii nii ñuy ñu ngi moom te dinañ ko ne moom moo yabaloon ci man loolu laa wax te dinañ ko ne moo laa nee na nga génn wax ak askan wi parce que moom mi ne nee nañ ñu baisser les armes loolu la wax. bu ñu ñëwee ci man dañoo Macky nee na ngeen bese les armes nee naa ko je baisse pas les armes na génn wax ak askan wi te tey dinañ ko yóbbu loolu dinañ ko ne moolaa ca ña nga yabal yabaloon F24 baak moolaa ñeneen ak ñeneen ñoom Mimi rek moolaa nee pour mu wàcc armam dangay génn wax askan wi lu leer wér te wóor lu dal ci nopp askan wi mu dalal askan wi